السلام عليكم ورحمة الله wa barakaatu yéen téléspectateurs yi nga xam ne yéenay seetaan Touba Monde bi TV di àddoo ci diwaanu Italie ngeen ànd ak ñun en direct fii nga xam ne moom Gambia ci diwaanu Westfield di ànd ak xasida online. tey nag doon le premier juin 2019 benn fan ci weeru June 2019 di bis bu am solo boo xam benn daa daaira bu ñuy wax daa daaira ma fatul jinaan moo koy amal fii euh, ñu toog nag ak ki nga xam ne mooy représentant xalif général des mourides nga xam ne taxawaayu liggéeyu Serigne Touba daf ko dolli ci fànn yëpp Serigne Mountakha Mbacké yeesalam liggéey bi ci moom mu yor ko yor bu rafet dolli lépp pour wan leen rek ne lépp yokku na am na at moo xam ne bi fi mag ñi nekkee màggali nañu Touba ngir bëgg a dem benn sept place mënul fees tey bu ñu xoolee xamul ñaata ju ci ay bus ci ay oto particulier ñoo fi déparé dem màggal Touba mu taxawee liggéeyu Serigne Touba bi nos fédération yi ba ñu am ñetti fédération yoo xam ne benn bu ca nekk bu ñu seetal lim bi dem nañ ci eh, juróom benn fukki daayira ak ñaar muy fédération Banjul ñaar fukki daayira ak juróom-ñett fédération Serekunda fanweer ak juróom-ñeent ak fédération Burkama taxawaay boobu nag ki ko tax muy sëñ Pape Demba tey sëñ Pape kuréel gi di ma fàttali ñu naan yoonu mbir bépp toog nga liggéey bi lépp lan ngay wax mbokku taalibe yi ci ministère bi sëñ Pape Demba Diop bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam ngi sant yàlla bu baax di sant ngeen ji bi def sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul di sant mbokki taalibe yëpp nga xam ne moom la bokk liggéey bi di ñaan yàlla suñ borom sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla sëñ taxa Mbàkke yal na fi yàgg lool te wér te bépp naal boo xam ne magam yi bàyyi nañ ko fi ak baayam yi yal na ko yeggale ak naali boppam yi nga xam ne tàmbali na ko yëpp mu yeggale ko si kàttan ak si jàmm ak si sutura mu ànd ko taalibe sëñ Tuubaa yëpp. ah taalibe yi muy Banjul ak Serekunda ba biir Kaama ak Gambie yëpp ah, ñu dañ leen di sant bu baax di leen gërëm ndax ah, taalibe taalibe Tuubaa lañ gëm ah, bon na ku leen wan sëñ Tuubaa rek loo soxla si ñoom dafay yomb. ndax ndigal boo xam ne jóge na si xalifa bi su jaaree si ñu jottali leen ko danañ si def luñ mën ak luñ mënut ñu ànd ak ñoom jamono yu ne di tànn si bel si balaa màggalu Touba ñu jël suñu addiya yóbbul ko képp koo xam ne moo fi toogal Serigne Touba loolu lañ ànd ak ñoom bañ leen joxee ndigal tamit si li nga xam ne mooy fédération yi ñu taxaw si ba def ñetti fédération ba Farafeññi sa am na fédération nga xam ne dañuy ànd ak ñoom jamono ñu ne pour tànk mbooloo mi si benn bokk liggéeyal sëñ Touba loolu mooy ndigali te euh, murit moom mbooloo bi mooy doole bi mooy mbooloo te nangul nañ ñu ko bu baax bon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm bu baax a baax si léegi bi nga xam ne ñoo ko bokk li si des mooy Touba si kanam. waaw boobu bëggoon naa ñu ñëw ginnaaw boo xamee ne sant nga mbokk taalibe yëpp gërëm leen liggéey bi nga xam ne yàlla dafa dogal muy toll ci ñetti at rek doon liggéey boo xam ne projet 2 millions de mourides ngir kenn ku nekk weeru wu dee nga joxe mille francs ñu war a am 2 milliards. at mu ñu am 24 milliards di liggéeyal sëñ Touba Touba ba mel ni Makka ak Madina sëriñ Pape dañ gis ne liggéey bi mu ñëwee fii ci réewum Gambie yegg si yow am na bu am solo boo ci te ñëpp xam nañ ne yow ku nga doo gaaw dugg ci mbir te it yombul sax nag nit mën la convaincre pour nga dugg ci dara lan moo tax bi Touba ci kanam rek nga accepté ko tànn ay nit nelen leen ànd leen ak ñoom liggéey ba pare ñaan ci engagé wow ngir liggéey mën dox sëñ Pape. waaw Touba kanam dafa nekk mbir mu leer li gën. mooy soo ko joxee na yegg beneen bi mooy euh, projet yi ñuy def beneen bi mooy projet yi nga xam ne dañ koy def lépp daa tegu ci ndigal ndax niñ ko sëñ bi waxee nga xam ne bañ ko taxawalee dañoo dem ci Seex Sidi Moxtaar leeral ko ko mu nangu ko ñaan si ndax benn murid bu ne 1000 francs jafewut waaye su ko ñëpp defee day doon lu am solo loo xam ne lépp luñ mën a liggéey si biir Touba bari na ndax euh, communauté rurale bi rek doyut xalifa bi képp ku doo xalifa sëñ Touba dañ laa war a jàppale te jàppale bi si gën mooy dajale addiya di ko joxe te addiya ji moom toujours li si gën mooy addiya ji na yegg euh, ba nga xamee ne sëñ Xaadim Caan daf ñëw ñu seen mbir mi ba gis ne lu leer la moo tax ñu nangu ko euh, doxal ko wax ko taalibe yëpp bañ ko commencé ñu tànn ñi nga xam ne dañ leen a wóolu ñu dugal leen si ñu jàpp si ba taalibe yëpp nga xam ne ñu ngi si jàpp bu baax a baax a baax ah, ba suñ borom may si ndam boo xam ne maanaam dañ dañ dañ koo nangu rek ah, ndax li ñuy def si li nga xam ne commencé nañ ko si liggéey si Touba si wàllu hôpitaux yi. si wàllu ambulance yi si wàllu oto mbalit yi ak yeneen liggéey yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne comme ni ma waxee communauté rurale bi rek dafa doyut wala mairie bi doyut pour mën a def loolu nga gis ne moom su ko yi yëpp defee si àdduna si fépp mu fépp mu war a nekk loolu day am solo lool moo tax ñu nangu ko te taalibe tamit nangul ñu ko ah ñu bokk def ko te am nañ si ndam boo xam ne yaakaar naa ne kawe na suñ jot surtout si Afrique jërëjëf. xamul bul amaanu mu wax lu wérul ci mbiru ca kanam mbooloo la moom politique ñu tappale woon te naxe woon fu a toll noonu xent luy jëme Touba ca kanam mbooloo la mbooloo nu àndandoo dem laaj ndigal ci Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke ku sopp Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke dafa nii say baaraam mbooloo nu àndandoo dem laaj ndigal ci Serigne Sidi Muxtaar dëgg la lii jëme Touba ca kanam li tax ñu nuy tàllal loxo ku di murid def tab loxo nu ànd jàppante loxo mooy jëme Touba ca kanam yow ñaari million yi murid looy xaar ci bokk yow ngir jëme Touba ca kanam yow ñaari million yi murid ñu joxe mil ci weer wu ne muy ñaari milliards weer yu ne muy jëme Touba ko defee ci at mu ne muy ñetti milliards at mu ak ñeenti milliards at mu ne moo jëme Touba ca mu rek bu dee dangaa dëggal ku sopp maam borom Touba defal nii say baaraam mu rek bu dee dangaa dëggal dëkkam bi war na la bokk ci war na kuy dàq sam di lam bëggoon kuy dàq sam di lam bëggoon kuy dàq sam di lam bëggoon nee leen ko Touba la bëggoon ku bëgg a jëf ca lam bëggoon na jëf ca Touba ca kanam ba tey ku naa xamaa xamoon sëriñ bu mag bi lam bëggoon nee leen ko Touba la bëggoon na way ca Touba ca kanam Touba ñu soxlay fajukaay Touba ñu soxlay fajukaay soxla na it ay jàngukaay soxla na ndox mu neex te day mooy jëme Touba ca kanam Touba tax laay rigool sax na na leer gu yaa tabiil lii mooy ippeel nan kamal ngir jëme Touba ca kanam Touba ngi soxlay gadara sax na la rond-point yuroo ca su amoon ay métro mu yey ca Touba ca kanam Touba ngi soxlay gadara sax na la rond-point yuroo ca su amoon ay métro mu yey ca Touba ca kanam képp ku yem ni lum joxe sëriñ bu mag bi la ko jox kookee la Cheikh Abibou jox loxo ca Touba ca kanam teg ko sàpp Serigne Abibou Serigne Fallou Mbacke defal nii say baaraan yaraa bi ñëw jotuloo ci bi ñëw tojuloo ci jumaa ji kenn sotuloo ci ca Touba ca kanam maa ngi taxawlu fii di ñaan maa ngi taxawlu fii di ñaan mbooloo mi yàlla sàmm leen ba ñëpp fekk si leen ñu ca kanam amin barke Ramadan laa ko waat yal ca kaw sara tàbbi jinan dëkk fa Touba ca kanam ma ngoog su ko defee dañuy jox suñu jëwriñ Serigne Abdoulaye Lo mi nga xam dafa bokk ci comité directeur bi waaye it jiite bi nga xam ne moo jóge Touba ngiram kàddu yooyu da koy leeral mbokki taalib fi nekk dëgg-dëgg doxalin wi su ko defee ñu teewlu rek bu baax mu tënkay kàddoom ñu soog a jàll ci li nga xam ne moom la ñu war a jukki des ci programme bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ginaaw bi ñu nuyoo alxalifatul am li al muridiya ñi ngi nuyu sëriñ pap Demba job mi nga xam ne moo fi nekkal cheikhul xadim sëriñ Muntala sëriñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di nuyu sëriñ xaadim Thiam mi nga xam ne mooy. ma ne bi ñu ginaaw bi ñu nuyoo alxalifatul am li al muridiya sëriñ Muntaxa di yàgg ñaan mu yàgg fi lool te wér nuyu. sëriñ Pape Demba Diop mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi fii ci Gàmbi ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi ko fiy def ginnaaw bi ñu fi njëkkee ñëw di nuyu bu baax sëriñ Khadim Thiam mi nga xam ne moom mooy coordinateur général bu Touba ci kanam ci Gàmbi fii jiite cellule bu Afrique ak sëriñ Mbaye Tène mi nga xam ne moom mooy euh, ànd ak moom ci liggéey bi di nuyu mbooleem ñi nekk ci Touba ci kanam yépp ci Gàmbi Euh, di leen jox nuyoo sëriñ Abibu mu sëriñ Mouhamadou Fadilou mi nga xam ne moom moo sos liggéey bi ànd kook ñun muy ñaari million ngi murit yoo xam ne dane bu ñu ko amee kenn ku nekk di joxe ñaar téeméer ci weer wi dana nekk ñaari milliards ci weer wi di ñaar fukki milliards ak ñeent ci at mi ñu di ko mën a jël di ko def ci dëkk bu tedd bi ngir sëriñ bi dina xam ne ñaan na ko ku tedd suñu borom ci Matlabul Fawzayni Touba na mu war a mel murid yi mën koo melal nga xam ne dootuñu ci xaar état dootuñu xaar dara kon di leen jox nu yóbbu sëriñ Abibu ak sëriñ Tàkko mu sëriñ Mouhamadou Fadilou sëriñ Abdoulahad Abibu ak président Abdou Fatah Gueye yi nga xam ne moo jiite Touba ci kanam ak tey jii nii mbooleem 64 pays yi nga xam ne Touba ci kanam nekk na fa ak sëriñ Abou Bousso mu yor relation extérieure nga xam ne moo ko jiite ndax ma tey jii nii ak Touba monde bi ñu àndal 64 pays yëpp. 62 ñu ngi ñuy suivre 62 pays. di wax ne Touba ca kanam euh, nekk na phénomène boo xam ne mbirum sëriñ bi la ndax sëriñ Touba moom xam nañ ne lépp lu xam ne lu jot rek moo koy tegal boppam. ndax nekk na mécanisme boo xam ne bi ñu ko commencé ak léegi si ñaari at ñu teg ay ay initiative yoo xam ne ak ay objectif yu leer ci kanamu mbooloo mi ginnaaw bi sëñ Abibu yëkkatee ñaari million murid yi tek sept domaines prioritaires yoo xam ne euh, muy infrastructure environnement nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu infrastructure ci dëkk ba lu jëm ci wàllu reboisement lu jëm ci wàllu njàng mi daara yi lu jëm ci wàllu santé lu jëm ci wàllu euh, recensement et sensibilisation lu jëm tamit ci wàllu activité génératrice de revenus parce que am dëkk kenn mënut a développer sans mu am ay yëngu-yëngu ñëpp gis nañ ne Touba ak mu nek magal bi lañ fay lewatal ci ay nak ci ay xar ci ay ci walu xéwal ak lañ liñu jëlé bitim rew ci walu ay nan war nañu dem ba Touba war ko mëna defal boppam am zone industrielle war créer industrie war def transformation produit locaux yi nga xamné mi ngi fa jàppale jigen ñi fexe ba am xëy am Touba ci lool nak ngeen gis ne ci ñaari at yi li fi dugg ci compte Touba ci kanam ci ñaar téeméer ñaar téeméer rek ëpp na 800 millions nga xam ne liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib commencé nañ ci ñeenti poste de santé tey ji ci on euh, yi boo leen xoolee dañ ne euh, ab ab dëkk 10 000 habitants yu nekk war naa am poste de santé ngeen xool ne Touba kon ci niñ ko xaymaa waroon naa am 140 postes de santé téeméer ak ñeent fukk te buñ ko xay buñ xoolee tey jii la fa nekk ñaar fukki poste ak juróom ñoo fa nekk kon am na cent 108 postes de santé kon 108 post de santé yooyu Touba am gab bi ñoo ñu gox yan nekk kon war nañoo xalaat ñooñu buñ feebaree fan la ñu war a fajoo buñ feebaree guddi buñ feebaree guddi kenn xamul buñ tàkkul sareet pour mën a dem ci bërëb ba ñuy fajoo dañuy daal ci jàpp ci yàlla rek euh, Touba ci kanam bi mu ñëwee dafa daal ci taxawal ñeenti postes de santé yoo xam ne benn bi àgg na muy lansaar ci ñeenti euh, xibla yi yeneen ñett yi sori nañ ci lool bi sëriñ bi sëriñ Muntaxa Seexul Xadim lancé tamit université bi Touba ci kanam dafa dem jël ci benn euh, bâtiment bu 800 millions ba fi mu toll nii nii ñu pare nañ ci études yi ba ñu ngi war a jublu ci liggéey bi tubaa ci kanam noonu la def ci social bi noonu la def ci wàllu euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji di saxal kaamil yi ku tedd yi nga xam ne depuis bi mu fi nekkee yëpp diirub dundam ñu ngi koy def Touba ci kanam am lu mu leen war lool eh, te waa Gambie gii ni kenn mënu leen ci social bi di leen gërëmal tamit di leen jox ngërëm bu président Abdou Fatah Gaye ak mboolem Touba ci kanam ci waa Gambie ci seen pasteef ci seen taxawaay di wax ne Touba buñ bëggee mu jëm ca kanam defe naa ne buñ defee lii nii ndax bërki démb rek eh, ci le 28. te am na benn spot bu mu jàllale rek ci TFM bi nga xam ne ci diggante vingt deux heures vingt trois heures spot boobu bi mu jàllee rek collecté nañ ci ci Orange Money mille francs mille francs neuf millions euh, cinquante et un ci diiru maanaam lu matul waxtu genn wàll ñu collecté ko ci Orange Money kon loolu moo lay wane ne murid yi lépp lu ñu jéem dañ ko mën ndax lépp loo xam ne tey jii nii def nañ ko ci yoonu murid muy sëñ Modou Moustapha bi muy indi raay bi muy jumaa ji bi ko sëñ Fallou di àggale muy euh, Masaalikul Jinaan bi nga xam ne moom la sëriñ Sidi Muxtaar naal ban war koo ubbi lépp loo xam ne lu ñu gis na ci yoonu murit murit yi ñoo génneel seen bopp seeni i poos xaaruñu ci kenn seen i ñaar dërëm ñaar dërëm tabax ko ba mu mel nii kon nag ñun ñëpp war nañoo gën a taxaw fagaru jàpp ci Touba jàpp ci Touba ci kanam ba nga xam ne ñaari million murit yooyu ñu bëgg mu matale ba nga xam ne lépp lu sëñ bi ci Touba kenn ku si nekk nga mën a xool ni samay ñaar dugg na ca. waaw ma fàttali ci naan sëñ Abdoulaye Ba ñu ngi leen di ziar bu baax di leen gërëm tamit ci invitation spéciale bi nga xam ne. defal ngeen ko waa Touba ci kanam lii daayira benn mosu koo def muy première te defe naa ne tamit ci fii nii fi lay déparé. Mm-hmm. ba daayira ba daayira daayira yi nekk ci àdduna bépp. Mm-hmm. war cee mën a roy. Mm-hmm. comme ni ko niñ ko defe woon daaw jéeg ñu seet si Pape Demba. mu boole ñoo ngi ba tey liggéey bi ngeen man ci ci Afrique. kon defe naa ne ñu ngi ci sant ñëpp rek di gërëm ñëpp sëñ Xaadim nuyu naa ko bu baax. waaw sëñ Xaadim moom moom moo tuddee sëñ Pape Demba tudd sëñ Xaadim. tudd la tudd euh, mboolem euh, waa Touba ci kanam Gàmbi yëpp rek. waaw ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum.